def ñëpp nag ci benn mbuus rek kooku moom mënul nekk parce que am na ba léegi ay magistrats yoo xam ne dañuy bañ dañuy bañ ah, wane nañ ko mais ah, xëy na euh, amuñu doole boo xam ne mën na leen may ba ñu mën a soppi yu bare suñu suñu constitution nga xam ne moo nekk ci kaw lépp wax na ko nee na justice warul dafa dafa war a sori exécutif ak législatif dafa indépendant léegi nag loolu ah kenn mënu ko commandé kenn sa bopp yaa koy def bu fekkee ne yow bëgg nga indépendant mën nga ko nekk parce que lépp bu fekkee bëgguloo ko doo ko mën a nekk loolu problème la wante nag am na leneen itam moo di environnement bi daf ko wax a mel Maroc pour loolu am indépendance bi euh, dafa mel exécutif bi dafay dugg ci affaire judiciaire bari na lu bari xam ne mu ngi ci biir kon nag loolu itam war nañ ko liggéey war nañ ko seet dañu seet naka la justice bi di am autonomie indépendance am totale ba nga xam ne législatif bi itam du nekk di def di ay di changer di nommer ay magistrats yëpp yooyu kooku moom itam liggéey bi